Euh, jëm si wàllum suuf ca euh, Mbourkat comme après maître Moussa Diop moom également mu génn pour euh, démentir ces informations yi nga xam yoo xam ne am na ko foofu ca Mbourkat. Pape Diop hmm. ma ko défendre. Hmm. mais damay wax sama aqulay taala ak la ma gis. Hmm. et ça c'était en 2021 ou 2022. mu am hôtel Mame Koumba Bang ca Saint-Louis su ma juumul. mu am décret ñu ne dañ koy nangu ci moom foncier ba moom pour cause d'utilité publique treize hectares la woon xam pour lan na woon pour jox ko maire Saint-Louis Mansour fay sous prétexte tabax fa hôpital xaw ma ñi ndëkk Ndar de waaye hôpital bi ñu waxoon di dégguma ko xaw ma ndax am na nag mais xool naa fu ne gisuma ko te loolu moo taxoon ñu wax ko. hôpital sax mun ñoo ko tabax ci treize hectares ndax hôpital Aristide Le Dantec bii sept hectares la nga ñu ne garaawul parce que booba temps il était dans l'opposition da doon opposé wu ñu ne ko léegi comme dañoo nangu suuf pour cause d'utilité publique eh, ci wàllu yoon suuf dañ naan comme nangu naa sa suuf fii dama la koy fayee beneen suuf feneen ñu fayee ko beneen suuf fii ci mbuurkat c'est son droit mais xam nga bu ma d'accord euh, maa ngi koy nuyu on se connaît très bien c'est un promotionnaire euh, Babacar Diop d'accord ma ne ni naa nga mi tere parcelle yi ñu ma jox. 120 120. Mhm. jël naa ñaata. 57 yi. waaw wala 53. 50 53 yi la jox. jox ko conseil conseil municipal waaw ci mm-hmm. sur 86. maanaam kon jël naa cinquante pour cent yi jox ko samay samay ñooñ. Mm-hmm. conseil municipal. Mm-hmm. waaw néew ma am ñu droit de. am suuf comme ñëpp am naa droit am suuf yow. Cheikh Amadou ku nekk am nga am nga droit am suuf. mais booy séddale. ah bu sedd si ñi nga ñi la jege. ñi bokk ca mairie ba. est-ce que tey askanu cees am ñu sañ-sañ ci suuf booy mm. séddale doo xool ñoom ñi nekk ci biir cees te bëgg suuf nga teg commission c'est vrai que yooyu yëpp am na ne leen léegi d'abord priorison mm-hmm. les populations du ñu leen di conseiller ci bokkuñu ci population bi de mm-hmm. ba pare nga ne non c'est parce que dafa am ay chefs religieux wala ay dignitaires religieux yu ci bokk nañ leen tudd waaw mm-hmm. ah, nañ leen tudd non nañ leen tudd. nañ leen tudd. ko leeral moom leeral wala ñoom ñu tudd seen bopp. Mm-hmm. Mm-hmm. pour liñ naan euh, seetal xaw ma nuñ koy weeti weddi tuuma wala seetal seen bopp aussi. Mm-hmm. am nañ ci droit. ñu jox leen suuf. jarul nëbb. am naa suuf waaye xam nga lan la lan moo jar a nëbb. ñu war laa jox deux cent mètres carrés ne da ngay tabax pour usage d'habitation ñu jox la dix hectares. yoo xam ne ni borne sax doo ko def waxtuma laak tabax quoi que ce soit mhm. nga xaar ba suuf si gën a cher mhm. nga dem jël ko jaay ko alors que amoon ci sax sañ-sañ loolu lañu ñu war a lijjanti mhm. ak ñan mooy complicité yi ci am gis tey y a des décisions de justice ci lu jëm ci wàllug suuf duñ ko appliquer et ça c'est un problème au Sénégal moom mooy nasaxal wàllug yoon ci wàllug suuf ce problème là maa ngi koy wax démb. Mm-hmm. Euh, ni ñu ko waxee ci ay chauffeur ak euh, mbirum transport l'état euh, Cheikh du Bamba mu ngi koy wax warul seet kii dina ma neexal wala dina ma tagg wala dina ma mere day jël responsabilité jël ay œillères teg ko ci kanamam. Mm-hmm. bu du xool gauche du xool droite vision am lay jël. la mu ci war a def mu def ko ci. nañu war a nangu li ñu yore parce que moomuñu ko. Mm-hmm. wala anam yéen lañ ko joxe bu dee nañ ko joxe ci anam bu bon mais man nga jox ma kayit bu baax waaye ka ma ko jox fa mu ko jëlee ak na mu na mu na mu na mu demee doon circuit bu bon mais man kayit bu baax laa yore état mën naka kaa jël jox ma feneen ci yoon bu baax léegi nag circuit ba mu jaaroon ña ca jaaree lu bon ñooñu bu jële leen teg leen ci kanamu yoon mm-hmm. parce tey am na ñu ñu arrêté seen i travaux wala ñu nangu seeni suuf wala ñu ñu téye seen suuf ne leen bu leen continuer te ci légalement lañ ko amee ci ay kayit yu ay base yu leer lañ ko amee mais pourquoi est-ce qu'on va prendre di euh, foncier di ko jox ay tubaab man loolu laa d'accord mm-hmm. du question racisme de dama dund ci tubaab yi ay at juróom-ñetti at daanaka di liggéey ak ay tubaab ba tey jii mais am na loo xam man lu jëm ci sama suuf ay doomu réew mi soxla ko war cee am pour mën cee defal pour doomu réew mi mënumaa nangu nga jël ko jox ko ab tubaab mu ci liggéeyloo ñaari nit ñett bu paree fay leen tuuti jël la ci li ci desoon yëpp ci wàllu dividende yóbbu réewam ñu ngi koy wax démb ci bato yi am na ko ku fi wax démb ngay liggéey ci bato doon sénégalais ñu ne la bato bato euh, battant pavillon sénégalais mhm. nga ciy liggéey waaye contrat sax duñ la ko jox King Fahd Palace ña ngay joy c'est une opportunité également pour parler de la situation des travailleurs de de King Fahd Palace Covid-19 moo taxoon ñu wàññi leen. Covid ba jeex yow booy jëlaat mais jëlaatal ñi nga xamee ni ñoom nga wàññi woon. ak seen expérience bu ñu fa am. ñenn def ay quinze ans vingt ans waaye si ñëw ak ñoom contrat bu nga dem dem jëli ñeneen ñoo xamee ni ñu bees lañ. parce que xamante loolu il faut également gis nga injustice. muy ci suuf muy ci hôpital muy ci oto muy ci lu mu mën a doon. euh, il faut que tous les Sénégalais jàppale le président de la République ah, et son gouvernement mm. pour combattre l'injustice parce que injustice mm. rafetul te baaxul ci réew d'accord Ahmadou depuis état bi wane engagement bi nga xam la am jëm si euh, wàllum suuf ba